wala bok liir ben procès verbal bo xamni teunk nañ lepp li nga xamni jot nañ ko liggéey si walu lamb depuis bi suñu dernière réunion comité directeur ba tey waaw DEA liir na benn procès verbal bo xamni teunk na lepp luy activité yuñ jot réaliser yëpp activité yi nga xamni prévoir nañ ko pour réaliser ak lepp luy proposition ak suggestion éventuellement pour li des saison bi

biñ paré également waxtaane nañ activités yi nga xamni jot nañ ko réaliser bari na muy lutte simple comme muy lutte avec frappe lutte avec frappe jangat nañ ni gala yi bari na def nañ journée yu on a eu plus de 700 licenciés plus de 41 euh, journées yo xamni jot nañ 153 euh, associations association wala affiliées au niveau du CNG 32 euh, promoteurs 26 ménagers et 767 licenciés yoo xam ni participer nañ ci suñuy événement li ñu ciy noté nag si lutte frappe mooy dans l'ensemble am nañ ci satisfaction si niveau yu bëri waaye ñu ngi continuer di déplorer ñu ngi continuer di joytu violence bi ñu ngi continuer di joytu yàq bi nit ñi di yàq chaise yi ñu ngi continuer également di joytu yenn comportement yenn acteurs làmb di continuer également di di joytu beneen mbir boo xam ni mu ngi commencé ëmbe làmb ji muy blessure yi nga xam ni buñ ne làmb ji suba la wala ginnaaw su la moo naan lañ tuddee veille komba yooyu également bokk na si li nga xam ni mu ngi gàllankoor làmb ji biñ jógee foofu également ñu dugg si lutte simple muy lutte traditionnelle

teg nañ lii dem ba si digg bi moo am gàllankoor si mise bi yooyu yëpp jàngat nañ ko te ñaan nañu également comité directeur bi nu mu ko jéem a mën a saafara nu mu gën a gaawee nu mu gën a rafetee gën a baax pour intérêt làmb saytu nañ également tournoi CEDEAO bi nga xam ni euh, Sénégal participé na noté nañ également rëkk-rëkk yi si am gis nañ ni demoon nañ pour wuti waaye yàlla def na deuxième lañ classé

def nañ seen présélection ba dara egg si si bi vraiment wax nañ ko yi ñu jëm gis nañ ni bi euh, fin de saison xat côté arène nationale muy lutte simple comme muy avec gis également que euh, lutte simple également noonu la invité par contre les acteurs à plus euh, ñu gën impégné imprégné wu si yëf yi di déploré wu nag surtout tëj bi ñu tëj stade Iba parce que bokk na si liy gën a gàllankoor làmb ji ndax boo fàttalikoo arène nationale bii ñu nekk calendrier bi dafa fees ba fin saison donc buñ ko tijji woon doon na mën permettre yeneen promoteur yi am yenn programme yi mën délocaliser seen i seen i activité daal di ko fay yóbbu euh, wax nañ également yeneen xeetu euh, sport yi commencé dugg Sénégal bëgg a joxante loxo ak làmb muy MMA par exemple Pour leen fàttalikoo fan yële vice président mondial MMA ñëwoon na fi ànd ak le président commission marketing ak euh, sponsoring ñëw nañ waxtaan ak CNG. CNG ànd ak ñoom yóbbu leen ci kilifa yi muy le ministre des sports pour ñu yaatal waxtaan bi ba foofu également pour gën a xool nan la ñuy commencé instaurer pratique bu mel noonu si Bir Sénégal jaarale ko si làmb donc yooyu yëpp ay waxtaan la yoo xam c'est des perspectives pour tënk daal euh, li ñu gën a jàpp du waxtaanee nañ également affaire VAR nee nañ depuis l'histoire bi amee fii keek Sa Thiès contre Reug Reug na amateur yu jàmbat VAR ñu ni ñun aay ñu pour indi VAR mais buñ demee ba wax ko indi nañ jël matuwaay yi war nan lañ koy defee kañ lañ koy def yan norme lañ koy defee ak ñan ñoo habilité pour def ko yooyu yëpp nag bu ko lal waxtaanee ba pare bu ñu ko waxtaanee ba pare ñu koy soog a mën a jëmmal nan lañ koy jëmmalee est-ce que ren lay doon est-ce que fin de saison lay doon waxtaan bi tijji nañ ko pour que comité directeur bi commencé see xalaat commencé ñoo jox ay ay matuwaay. wax nañu également par rapport violence bi nan la ñuy mën a def ba génne ku carrément si làmb ji parce que violence ak sport àndul ku ci joxe nga sa xalaat. joxe nañ ban façon wax nañ nga ma problème face à face nan lañuy def waxon nañ ni arrêté nañ ko pose nañ ko provisoirement le temps ñu xol fan la bonné ak nan la bonné comité directeur bi waxtaan na ci waxtaan nañ suñu biir ba xam nañ exactement nan la mëna def ba fan yi dinañ ko reprendre génné benet lettre circulaire bo xamni dinañ wax exactement nan lañ bëgg euh, reprendre face à face yi

nan lañ ko gisé ñom ak ban compréhension lañ am ci yëf yi waxtaan nañ échanger nañ et que je suis sûr que biñu ñu tay ci réunion bi làmbu c'est sûr yokkuwaat na ben jéego loolu dal la mënon teunk ci réunion tay bi di wax ni mu ngi déroulé ci condition yu rafet ci atmosphère bu rafet bo xamni nit ñi safonté nañ waxante nañ dëgg nak suñu biir ba nga xamni également luy yokk lamb ci karam yooyu dal lañ mënon teunk ci waxtaanu tay bi Lama buja, boleh bol, ini